dëgg la wante président bi gis ngeen li mu décliner mooy tànn sénégalais yi gën pour daal leen dénk urgence yooyu noonu nga xam ne euh, cité nga ko mu nekk nag ay urgence yoo xam ne nangu nañ ko te moom aussi comprendre nañ ko rapport lu war a nekk la xam nga bu njëkk li fi amoon moom mooy nit ñi dañ doon nëbb dañ doon nëbb askan bi rapport bi alors que askan bi ñoom ñooy ñoom ñooy euh, le peuple le peuple souverain askan bi ñoom nañu yoreel seen i mbir à chaque fois jamono ju nekk askan bi war na mën a xam fan la mbir yi ñu leen yoreel toll est-ce que euh, yor bi ñu ko yoreel méngoo ak yoon est-ce que yor bi ñu leen ko yoreel euh, amut njuuj njaaj ci biir. waaw baax na trop ñu saytu. ni ñu yore woon réew mi ñu ñu dénkoon euh, muy OFNAC IGE mais sénégalais yi fu mu nekk nii am na leneen lu ñu tal lu dul loolu li ñu tal mooy dund bu cher bii nii naka la ñuy def ba nga xam ne nii tey le plus petit sénégalais sama mbokk kaw-kaw yi ci village yi mun a am dund boo xam ne ni tey nay ministre bi di dundee këram nay commerçant bi di dundee këram nay kaneen moom mun a am accès ci ceeb ci diwlin ci truc mm, li may wax mooy ñoom dañu jaay jeunes yi benn projet espoir boobu mu am nañu ko dimbale ba nga xam ne ni tey liggéey boobu ñu digoon ko wan ko ne ko ñoom dañuy ñëw rek mu am donte munta ne jeune boobu nañu fexe ba trouver ay solution yooyu noonu pour man ci lañu war a gën a jublu mais pas yi ñuy wax